sant yàlla julli ci yonte bi di sant suñu ñaari waajur di leen nuyu bu baax a baax yéen suñu internet yi ñuy topp ci Leewtoo TV yi ku ci nekk turam ak santam bu ñu sañoon ku ci nekk na fekk fa nga ne ne jàpp suñu loxo daal di leen nuyu waaye lañ mën mooy toog fii rek jox leen seen wàccuwaay di leen bëggee bu baax a baax dem ci yéen cofeel bu bare bari noonu laay def daal di nuyu sama mag ji Mbaye Babacar borom Diourbel su ma fay daal ñëw jukki leen di gën a fës Mbaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi lay fay wante tey nuyu woo sa sëriñ bi de sëriñ Basirou Mbacke borom mbég meeg taar bi borom lu tax nuyu woo ko. maa ngi baax a baax. waaw moo gën nag dee ko bu baax a baax suñu mbokk yépp li nga xamante ne bii ñu ngi yéen ñuy topp ci ah, Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu toogee jàkkaarloog yéen ngir fës yéene leen a jukki li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb wante maa ngi nuyu bu baax baax waa Njaareem waa Bawol yépp sama dëkk maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam. di leen nuyu bu baax baax waaye di sant di gërëm ñi ñuy accompagne ci revue bi suñu sponsor yi nga xam ne ñu benn yoon bàyyi ñu diwlu Jador ak gamba complet boobu mu àndal daal ñu indi vermicelle Jador macaroni Jador spec di Jador ñi di teg artaay Jador kenn du Aziz Are mooy kenn du Abdou Aziz Aly Ndiaye ñu ne den mu teg ci ataay Zador wante waa Okoyaar dañ koo feelu ci wet gi. di ndox mi nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp ànd nañu nangu ne set na sell na neex na ba pare ñu la koy jaay ci ay prix yi nga xamante ne bii Sénégal yépp a ko jotee ndax prix yomb na macha allah. Euh, ndox ma nag neex ga mu neex fekk jëfandiku woo ko mënoo koo xam kon li may wax Sénégalais yépp nañ jëli Okayaar ndax Okayaar mooy ndox mi ñuy aar noonu laay defe ne saraax ci xew-xewu làmb ak journal suñu làmb kam xëyee ci xëtam mu njëkk nag di Balla Gaye numéro 2 le BG2 de Guédiawaye la muy xam ne nag ginnaaw rapport de combat boobu ñu amal moo ndox le 31 diggante bi nga xam ne mooy bombardier xale bu ca mbuur Balla Gaye la muy xam ne ci journal bi da neen laal lutte ma manque maanaam na mën a làmb na mën a làmb ba pare li mu dépensé woon ci préparation combat bi xaalis bi bari na trop ndax ku nekk gis na Balla Gaye préparation bu am doole bi nga xamante ne bii def na ko ci combat bi muy waajal bu mag bi nga xam ne mi ngi ko doon waajal bu bis bu mag boobu di bisu 31 juillet digganteem ak Bombardier nee na dépassé na ci xaalis bu baree baree baree bari gannaaw ba mu namee làmb nag wante nee na bi information bi daanoo déggante na ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier téléphone. ci téléphone Aziz Ndiaye lañu ñu déggante waxtaan nañ ci li jot a xew ku ci nekk euh, naqarlu na ko wante ak lépp lu mën di xew lépp lu mën di am nañu jàpp ne situation dëkk bi moo toll foofu moo tax ñun lii am am euh, ba léegi nee na euh, information ba mu daanoo ñaar ñi njëkk a xalaat mooy Siteu ak Papa ndax ñoom ñaar seen situation metti na torop seen combat njëkk nañ ko Euh, fomm euh, bi mooy deuxième fois ñu koy fomm te moment bu ñu koy fomm rek day fekk ñoom ñu préparé ba pare ba combat bi des ay fan yu néew nee na bi information bi daanoo ñoom ñaar njëkk xalaat te it mu ngi leen di masawu bu baax a baax gannaaw ba mu masawoo boppam ba noppi. <laughs> te loolu nag lutte simple lañ jël lutte simple nag mooy dérivé li xam ne mooy SCRM. 157 galas 4 mois de compétition Doudou Sané nag au pinacle Mbaye Babacar. Doudou Sané bokk na ci mbër ya nga xamante ne bi ñoo nekk ci kaw ci euh, lutte simple bi. ndax mbër la ma nga xamante ne bi macha allah wane na boppam bu baax a baax a baax a baax ci li nga xamante ne bi moom mooy euh, téeméeri galaa yi jot a am ak ñeent fukk ak ñi ak téeméeri galaa ak juróom fukk ak ñeent maanaam 154 galaa nga xamante ne bi jot naa am ci ñeenti weer yi ñu jàll ki nga xamante ne bi moom mooy Doudou Sané wane na ci boppam mais li ñu mën a jàpp mooy région de Fatick moo ci ëpp li mu tëgg làmb ay simple làmb simple loolu nag euh, warul jaaxal kenn ndax région de Fatick nekk na dëkk ba nga xamante ne bii lit simple fa la fekk baax ka ca topp di région de Thiès euh, Dakar feelu ko kon daal mën nañu jàpp ne lit simple Fatick moo ci jiitu Thiès topp ci Dakar topp ci ci li nga xamante ne bi ñoo ëpp ñi ñu tëgg ay làmb wante ba léegi bu ñu jàppee ñi nga xamante ne bi ñoo ci gën a fës mën nañ ci jàpp général Malika mën nañ ci jàpp Franc Doudou Sané ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Serigne Ndiaye numéro 2 di ay mbër ya nga xamante ne bii wane nañ seen bopp bu baax a baax ci lutte simple mhm. te noonu nag ginnaaw ba mu lancee ci kanam doomu Fass boobu di Gris 2 Abdou Diouf nag sur sa sur sa carrière lam ci xamal la mu naan instant bi décidé gul dara lu mu ko indil incha allah. gannaaw jamono yee passé ba ñëpp ne bàyyi woon na làmb dafa ñëwaat nag dellu si waat ci bi nee na gannaaw ba ko Gris 2 daanee ay supporters yu bëri ak waa yu bëri euh, xam nañ ne làmb ñaari ndam ñooy dugg wante benn mooy génn. victoire ak défaite ñoo ànd comprendre nañ ko ci jël bi nga xamante ni bii Gris 2 daan na ko ci nee na nag waxtaan na ak ay mbokkam mais euh, ay mbokkam nanguwuñu sax mu bàyyi li nga xamante ne bii mooy làmb mais nee na daal moom ak lu mën di xew mu ngi xalaat li nga xamante ne bii mooy avenir am te incha lu mu décidé dina ci waxtaan ak ñi nga xamante ne bii ñooy taskatu xabaar yi. te loolu nag annoncé comme une saison explosive la saison 2020 2021 tourne au cauchemar maa lañ ko ay gént la mu jéem bay Babacar. bokkoon ci bokkoon ci combat yi nga xamante ne bii combat yi gënoon a neex la euh, ci euh, saison bi ñu mënoon ci jàpp Tapha Tine booy Niang mën na ci jàpp ki nga xamante ne bii mooy euh, Balla Gaye Bombardier waaye Reug Reug Gouye Gui waroon nañ cee bëre ak yeneen combat nga xamante ne bii yu bëri fi mu toll nii mën nañoo jàpp ne naax saay nañu ci saison bi ñu nekk nii peut-être nag saison bi ñu jëm ñu tëgg leen ci moo tax suñu làmb ñëw ci ñëw ci wax ci la wax ci euh, xalaatam nee na saison bi daal mën nañoo jàpp ne fi mu nii jeex na tàkk incha allah li des rek mooy saison bii ñu dëgmal te saison bii ñu dëgmal euh, combat yi mënoon na cee mën na cee am waaye nee na saison bi ñu génn nag ki ci rëcc ñaar ñi ci rëcc mooy Eumeu seen ak ki nga xamante ne bi moom mooy euh, Lac de Guiers numéro 2 ndax ñoom ñaar seen combat am na ci. am na te noonu nag ginnaaw ba ñu jàllee ci Doudou Sané nag Franc ak Serigne Ndiaye 2 duo boobu nag nga xam ne explosif la ñaar ñooñu ci xale yi. waaw ndax ku ci nekk ni moom ni mu ko waxee sànq ku ci nekk wane na sa bopp ci lit simple bi xam nga Franc dafa nekk mbër ma nga xamante ne bi lit simple amatul lu mu ciy prouvé na ko ñëw na ko dandul li mën a jàpp ci ki nga xam ne moom mooy Serigne Ndiaye dëgg mu jël ci lit simple jël na juróom-benn gala dajale ci li nga xamante ne bii moom mooy juróom-benn million ak fanweer million cent cinquante mille francs dajale na ko ci li nga xamante ne bii moom la jël ak benn oto. kon mën nañoo jàpp ne Serigne jaay ci li simple bi Bamba maase na ci ñeenti weer yi nga xamante ne bii jot na koo bëre wante ki nga xam ne mooy franc moo ko feelu moom tamit am na li nga xamante ne bii mooy 6 millions 800. maanaam juróom-benn million ak téeméeri junne ak juróom-benn fukki am na ko ci li nga xamante ne bii moom mooy bëri simple bi moo tax suñu làmb tey bind ne Franc ak Serigne Ndiaye de wax dëgg yàlla ñoom ñaar marqué nañ seen empreinte ci saison ren bi ci bëri simple. te noonu nag ginnaaw ba ñu reporté combat ba bu doon diggante Balla Gaye ak Bombardier waa Mbour la ñu ngi fustigé di wane seen naqar ndax doy na événement bu mag boobu ñuy reporté ko à cinq jours du combat loolu nekk na lu leen métti. nekk na lu leen métti ba tax na ñu def li nga xamante ne bii mooy genre micro trottoir euh, ci mbedd Mbour yi euh, waa suñu làmb waxtaan ak amateur yi nga xamante ne bii. ñoo nekk foofu euh, ca Mbour ñu andi li nga xamante ne bii moom mooy seen méttiitu xol kiñ ci gën a jàpp rek mooy Fallou Mbaye nekk benn chauffeur taxi nee na mënoon nañoo sauver li nga xamante ne bii moom mooy euh, combat Balla Gaye ak Bombardier Euh, gannaaw bu ñu utiliser woon li nga xam ne moom mooy mesure barrière yi mesure barrière la ñuy wax wala musique barrière. musique barrière ku liiru ko kon. bi ngi noonu nee na mënoon nañoo sauver bi bu ñu utiliser woon li nga xamante ne bii mooy mesure barrière yi ku ci nekk def li nga war a def ndax combat bi demoon na ba jege wante ki nga xamante ne bii moom mooy daaw dafay tamit li mu gis mooy combat bi wax dëgg yàlla euh, ñaari mbër yi dépensé nañ ci xaalis bu pare jëlale na promoteur bi nga xamante ne bii moom moo jël xaalisam. moo jël avance am jox ñaari mbëri mais nee na ñaari mbëri li ñu dépensé ci combat bi ak li nga xamante ne def na ko ci combat bi mënoon naa tax ñu sauvé boobule combat waroon na dox ci diggante Balla Gaye ak Bombardier te noonu nag kii di Abdou Badji nag déserte la lutte ginnaaw ba mu démissionné ci postam boobu ba mu nekkoon directeur technique national bu bu Sénégal ginnaaw ba ko deserté yeneen gisatuñ ko ci làmb yu ñëwatul ci benn combat lu war a loolu mbay baax moo nekkoon DTN bi nga xamante ne bii moom bu nekkoon ci CNG maanaam directeur technique national bu làmb ji moom nag dafa tekki woon bu tànkam ci sagoy boppam maanaam dafa démissionné woon gannaaw ba mu démissionné ba léegi nag ca lañ ko gëj a gis ci làmb moo tax suñu làmb tey ne Abdou Badji daal gëj nañ ko gis ci làmb te wax dëgg yàlla bokk na ci làmb te it lu baree baree bare def na ko ci làmb moo tax waa làmb namoon nañ ko te it ñu ngi koy sàkku gisaat ko ci li nga xamante ne bii moom mooy stade bi moom Abdou Badji di ka nga xamante ne bii wax dëgg yàlla ku def lu bari la ci làmb. Mhm. ci doon nag dañuy demee ba journal Les Arènes Les Arènes nag la may xam ne ñi nga xam ne ñoo gagné seen ay ba pare positionné di Sa Thiès Gris Franc ak Diène Kaïré lan ngeen xamal la quatre fantastiques de la saison maanaam ñoom ñoo saison ñoo sauvé saison bi ren. ñoom bokk nañ ci ñi nga xamante ne bii ñoo rëcc ci saison bi. Mm. ndax ñoom ñeent ñooñu ci nekk bëre nga ba pare am nga ndam. jàpp Sa Thiès Malick Niang Diène ki nga xamante ne bii moom mooy Gris mu ne Sa moo daan ki nga xamante ne bii moom mooy Moussa Ndoye jël ba nga xamante ne bii amul benn werante Diène Kaïré ah, moo daan moo Modou Anta di jël ba nga xamante ne bii macha allah ñu bëree gis na nam ko daanee Gris 2 daan Abdou Diouf Gris 2 moom moo daan ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Abdou Diouf mu nekk ña nga xamante ne bii ñoom ñooñu euh, bëri nañu ren ba pare am ci seen ay combat ndam kon mën nañoo jàpp ne ñoom ñooñu bu combat bi bu saison bi ren sauvé bokk nañ ci ñi ko sauvé gannaaw lutte simple bi nag ndax lutte simple wax dëgg yàlla kenn mënul tudd làmb ci Sénégal doo ko ci boole. Mm-hmm. te noonu nag ba léegi battu par Ama Baldé est jeté dans l'arrière-cour de l'arène maanaam te ginnaaw saako yi nga sànni quel plan pour Malick Niang ban plan la ñu pour relancer kii nga mooy Malick Niang le boxeur de l'arène. ba ko ba ko daanee le 1 juin la woon combat ba nga xamante ne bii amul woon round d'observation amul woon xaar arbitre dafa suuf soufflé rek kur fa ñu mel ni pré-course tàcc tàcc ga dakka takkar naa se ñoom ñaar ñu daje xeex ñu gis nag Ama Baldé daan ko ci jël ba nga xamante ne bii ñu bëri bett na leen. ndax avant combat bi technicien yu bëri dañu jàppoon ne Malick Niang moom moo nekk favori ci boobule combat ñu gis na nag ba combat bi jeexee ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé moom moo am ndam Malick Niang nag depuis boobu ba léegi toll ci juróom-ñaari at 2014 ba léegi toll ci juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at gisuñu ko ci làmb gisuñu ko mu bëre euh, déggoon nañ fi sax mu doon déclaré ne bàyyi na ñii ne bàyyi na làmb ñii ne bàyyiwul làmb mais fan yii passé dékk nañ ko micro fële ci arène nationale nee na bàyyiwul làmb mais li mu waxoon nag mooy bu amul combat ci saison bi moom. day bàyyi mais finalement gis nañ saison bi ni mu terminé. nekkul ci nekkul ci coobare kenn wax dëgg fa yàlla. sëñ nag ba léegi Pikine lañ jëm ak seen ñetti ginnaaw bu Eumeu Sène lajjee ci kanam Lac de Guiers numéro 2 Boy Niang ak Ama Baldé noonu xaar ñu sauvé waa Pikine ci naqar boobu Lac de tegal leen ko waaye li mën a am nag mooy lamb ja reporté nañ ko Mbaye Babacar gannaaw ba ñu annulé li nga xamante ba ñu reporté li nga xamante ne bii moom mooy combat Ama Baldé ak ki xam ne moom mooy Boy Niang Eumeu seen jógee ci défaite kon mënuloo jàpp ne Pikine daal ren moom mm-hmm. VIP ya fa nekk euh, seen affaire Euh, doxul noonu quoi parce que Eumeu seen moom mooy seen mag moo njëkk a bëre ki nga xam ne moom mooy Lac de Guiers euh, am ndam ci kawam ñaar ñi yaakaaroon ne dinañ bëre ci saison ren bi mujjee ñu gis ñu bëre suñu euh, journal Les Arènes bi nga xamante ne bi Abou Ndour moo ko jiite te dafa def liggéey bu mucc ay macha allah nee na waa Pikine daal li nga xamante ne bi mooy seen mbër yi seen ñaari mbër yi bëre wut seen mbër bi jot a bëree dañ koo daal koo daan ci noonu nag loolu moo nekkoon di gën a fas xibaaru làmb loolu nga tàggatoo Mbaye Babacar la kontaan ci yow di la bu baax a baax a baax wante di jaajëfal euh, Bilal Ndiaye mi nga xamante ne bii moom mooy suñu caméraman di ko jaajëfal bu baax baax wante tey may jaajafal sama jigéen sama xarit kooku mooy laa la dixa ñu naan ko Khadija taalibi Serigne fàllu Mbacke borom boutique sopp Serigne Fallou Mbacke nekk fële ci Rufisque maa ngi koy bégee di ko ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam borom prêt à porter yu baax yi macha allah gis nga tey boo gisee tey fi ma génn. ba moom fa génne maa ngi koy ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam place ba nag mu nga fële ca Rufisque dend ak pharmacie Satu képp ku bëgg lu baax rek dawal seeti Khadija taalibe Serigne Fallou boobu nga xamante ne bii moo yor prêt apporte yu baax yi jën yeeg t-shirt yi ak li nga xamante ni mooy lacoste yi neex ci tàngoor bi Khadija moo ko yor jàmm ak salaam ba suba jàmm.